jërë ngeen jëf mbokk yi ñu suivre ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di amaan mbégte jàkkaarloo seen seen leader bi di people 221 di nuyu sunu kilifa di nekk kilifa day di ñaanaat réew mi di Sénégal yàlla na sunu borom dolli jàmmoo euh, tey nag ma dalal sama frère mu di Pawlish Mbaye fas yéene Cheikh ak moom waxtaan ku ne gis na semaine bi daanaka actualité yi nga xamante ni mu ngi wili ci réseaux sociaux yi lu ci mel nii Euh, le cas de Mohamed mbay Garmi di sunu papa vraiment li nga xam ne accusé woon nañ ko ko waaye it gis nañ coow li nga xamante ni moo am euh, ñuy wax diggante Miss ak Aziz Ndiaye divorce boo xam ne dafa am ci noonu la ñuy taataatee sunu micro Pawlish Mbaye Pawlish maa ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum euh, maa lay fay guy gi bu baax a baax ma ngi lay fay sa tur ak sa sant guy gi. sama xarit bi ma ngi lay fay bu baax a baax a baax tey moom fay naa la moom ma ngi lay fay bu wér a wér. ndeysaan. ma lay fay. ndeysaan am na solo Pawlish yaa ngi dërëm yàlla rek sant yàlla bu baax a baax sant naa ak yàlla parce que damaa jëloon congé temps yi mhm. léegi tey laa reprendre tey reprendre liggéey bi am na congé tey laay reprendre li ma doon def lépp su activité tey laa ko reprendre tey parce que man tubaab laa damay am moment boo xam damay repos damay toog dallu concentré xalaat sama mental baax sama hygiène baax fi may tëdd baax moo tax ma ne xaaral ma ñëwaat pour reprendre tey tey tey laay reprendre daal yëngal ba ba ba décembre ma jëlaat congé c'est normal il est temps maa ngi bëgg a yàgg ci waxi dof nag maa ngi ci bëgg a yàgg nag a yàgg te boobaa ba tey nit ñi jëleegu ma nit ma man maa ngi leen di nax rek di dem ma leen di dama leen a nax a nax a nax a nax a nax a nax Sénégal yi dama leen a nax a nax a nax a nax naan laa woote woon ñaan xaw ko ak réew ak a dof kii ak a dof dof bu intelligent dof bu mën a solu dof boo xam àddina xooli dof bi li mu sol tu Gucci mhm. jëla Gucci waaw Gucci Gucci <laughs> Gucci Gucci. te te lépp caay wax dof la. te ba tey ngi yére gi ma jàppee dof te dofuma dof du xam lu ànd lii te Gucci dof du xamee noonu temps man gëm naa ni ñi may seetaan ñooy ay dof gëm naa ni ñi may ñi may ñi may vie bay wax ci man ñoom ñoo ay dof parce que dof boo xam ne xam na lépp. toog foo xam ne gis na lépp toog foo xam ne mi ngi def fépp toog foo xam ne mi ngi seetaan barke Seydouna Muhammad des fois ma gis nit ki seetaan ma kott ma jooy ma ne ma ne xoole a intelligent ma koy yëngal ci du ma ko sama bopp d'accord kon ñi may seetaan ñu ay lan. d'accord na solo ñu ay lan ñu ay nit. ah guy gi pardon ñu ay ban complicité la la la la la jëkkër war a am ak jabar. ban complicité la jëkkër war a am mais mais waxtaan rek ngeen bokk seen lépp ci àddina taan te waxtaan rek. parce que Sénégal tàmmuñ di gis genre jëkkër boo xamante ni day ànd ak ànd ak jabaram dem resto wala ànd ak moom dem dem plage. alors que lokk boobu boo ko defee dañ naan dafa am ñooy naqaral wala da ngay yàq xaalis non non des fois nga des fois nga a xool des nga a am sa jawar mu dàq laa xool yow mi ko indi wala wala wala yow mi ko indi restaurant moom mu gën laa xam restaurant bi loo ko indi indi la rek xale yi xale yu xam restaurant bariwul de foo yóbbu xam na fa dem na fa demati fa moo tax day ragal yóbbu seen jabar restaurant bëgg na yóbbu seen jabar yi de mais bu demee nuyu dañuy nuyu ñëpp nga xam ne kii xam ne ñëpp loolu lay xaw a daw ko loolu la xam te boo def fii nga yóbbu sa jabar restaurant mu xam waa restaurant bi xam douche bi xam waañ bi xam fi ñuy aje xam fi ñuy reeree kon kooku loo koy yóbbu waate loo koy doyee sa jabar mu dàq laa xool di xool ba mel xool ba mel ne rab foofu bëdi farfar kon lu ko yóbbu am nañu bëri ñoo xam ne ñu ko yóbbu yóbbu seen jabar mm-hmm. bàyyi leen jabar moom na sëy rek toog ñaam doom mm-hmm. xaar yàlla waaw euh, d'accord ay restaurant moom wóor. d'accord taw fan yi ñu ñu ñu ñu gis ay vidéo yoo xam ne mu ngi doon fuité muy Aziz Ndiaye ma koy nuyu borom Jador ay vidéo yoo xam ne moo soxnaam la woon ah, mu nekk mu nekk lu rafet mais vidéo yooyu dem ba jur coow. Ah, ñu gis ni am na ñu bari ñuy wax naan ah, aaw bi sax dafa mujjee mer dem xam nga Sénégal chaque fois ak li ñuy wax. da koo gis aaw bi dem. gisuma ko. li ma jaaxal yéen yéenay tas sëy yéenay takk sëy internet yi. ay xale yu ndaw buñu demee bay bay dugg ci biir privé jàmbur xale yu tuuti dem bay dugg ci biir privé jàmbur xale yu ndaw xale yi léegi ñooy tas sëy ñooy takk sëy ay xale yu ndaw dem bay dugg dem bay dugg i biir privé jàmbur ak la mm-hmm. miis kilifa lu ko Aziz defee da kaa mérito lu mu am ci Aziz da parce que moo ko fa xaar mm-hmm. am fa ay jaboot xale bi ndaw nu koo tas loo te du tas te ñaanu ma ko yàlla mu tas te yàlla bu mu tas te du tas nit ngi wax rek du tas mis xam na li koy indi xam na li koy xaar njaboot rek mooy sëy ak ngor ak dal am na boobu am na njaboot am na gor am dal Aziz ku baax la yor na ko ko war a yoree ci àddina ñu ngi sëy ba nekk xale ban sëy ba te mosoo gi dégg Aziz ak mis xuloo nañ léegi xale tas bii privé jàmbur Aziz kilifa la am ay doomu xale bi muy xale bu ndaw la dafa war a dugg am am njaboot toog sëy géré am na droit nekk ak jab jëkkëram li ñu demee def lu ko neex am na boobu am na boobu yëg ku nekk da ngay sa jëkkër sag dafa neex mais li ñuy li ci xale yu ndaw di wax ci internet bi naan yàlla te tas na ku ne di wax ca kii di génn sa grand dessert nit ñi nañu maanu si des fois seen yaay tas ak seen papa duñ ko génnee. des fois seen yaay jàpp seen papa dóor ko mu tëdd te duñ génne loolu des fois seen yaay seen papa di doxaanu wel te du génne seen doxaanu papa des seen papa am jabar ànd ñoom leen demee te du ko génne nanu génne ci sëyu jàmbur yi nan dugg seen jàmbur yi ñuy ñu génne ci mbir mi di ko wee te ñoom réew mën ta weesu sëyu kilifa nga taxaw ci di ko wax naan tas na ñii naan tasul ñii naan jël na ko or kii naan jël na ko da miis romb na or dépassé na oor lu mu am ci asi daka mérito ëmb gën a metti ci àddina ëmb ëmb moo gën a mett da koy ëmbal doom di jur di ëmb nga xamoo lu ko tànkam mi ngi àllaaxira benn baa gi àddina loolu gën a métti ci àddina oto bu rafet du sëy kër gu rafet du sëy xaama du sëy rand du sëy ngor mooy sëy ak yërëm sa jëkkër sa jëkkam yërëm la sa jëkkam yërëm la ngeen ànd sëy sëy mën tawee ci lu ak gore te mi lépp moo ko fay xaar lu fa am daka mérito parce que mérito pour am lépp ci àddina xale bii di ñëw yal na ko yàlla may ngor gi Euh, kii am am nga fa toog te da koy xale bu ndaw duggoo ci sëy day sëy te yal na ko yàlla may njaboot gu baax a baax miis magam la ba at day tukki miis magam la ba at day tukki ba at day tukki na ko jàppee mag na ko jàppee yaay na ko jàppee xarit na ko jàpp bu génn dugg ci ndigéen ñii nekk ci internet bi di wax naan miis li kii nu mu tudd sa xale bi Aïcha Aïcha nii nañ téye seen làmmiñ te xool seen seen sëyu ndeyee yëngatu foofu seen sëyu bàyyi des fois seen papa di doxaan wel seen des seen papa doxaan ci koñ bi doxaan seen papa yi seen papa seen papa takk ko ñu seen yaay dóor seen papa seen papa tëdd papa di jënd kaani seen sëyu sëyu jàmbur yi te ñu réglé téye seen làmmiñ xale ñu tey bàyyi xale ndaw di lijjanti sëy àdduna tukki na xale yu ndaw léegi ñoo lijjanti sëy xale yu ndaw ci internet ñoo lijjanti sëy sëyu jàmbur lu seen yoon lu ñu maandu ci sëyu jàmbur di ci def ay live ku nekk di génne ay ayib ku nekk ay te yow seen papa ak seen ayib ci àddina la ma doon duñu génne seen ayibu papa ak seen ayibu yaay mhm. te ñoom bu dee dañu woon nit ku siiw ñoom siiw ne la ma seen papa ak seen yaay bu ñu xoolee du ko génne mais nañu maandu ci sëyu jàmbur yi nañu maandu ci sëyu jàmbur yi nañ ci maandu réglé nañ ci téye seen làmmiñ nañ ci réglé maandu yu téye seen làmmiñ nit ñi mais xay xale ndaw yi nañ internet bi di wax sëyu jàmbur yi te seen sëyu yaayee gën a métti seen yaay seen papa dinañ xëy suba di leen jox dépasse la war duñ gën naan jox ko dépasse la war wax noonu duñ ci wax ñoom mm-hmm. mais nañu maandu sëyu jàmbur yi mm-hmm. Aziz ku baax la mi ngi yor jabaram mis ku baax la Aïcha Rasoul ku baax la na leen yàlla boole ñu si am ay njabooti barke léegi lan moo ci génn di wax si di dugg ci biir privé jàmbur yi Ilimaan lam da bëggoon takk jabar mais da koy bàyyi Ilimaan dafa bëggoon takk mais lii dina tax du takkati de ragal na de ragal na ragal na parce que nag nee nañ wax ma sa xarit ma wax yaay kan français ma wax loolu trop bon trop con moo ko wax wax ko samay wax en fait en plus français moo wax loolu wala ma sa xarit moo wax la yaay kan français tekki ko trop bon trop con français moo wax rek man par pas du samay wax en fait. Mhm. parce que Ili li ma gis si moom da doon dem di labati kees parce que léegi xam nga kees ñoom dèjà xale yu rafet dafa lañ dëkk loolu lañ jox ñu sëy téeméer ñu sëy cent franc ñu sëy mango faroxo ñu sëy kallu ñu sëy moo xam ñu sëy parce que kees en plus dafa tàng. xale boo ci coppati indi Dakar nga foog ne yaa ngi te doo àjjana xale yu rafet yëpp ñu nga Cees xale yu raf baax yëpp ñu ngi Cees moo tax xale yi Dakar war nañu xoolaat seen bopp kuy takki parce que des fois ñoom seen sango du nekkul chaque jour sango seen karoo pokotaan moo raw tool mhm. taluñoo sango lañ tal nekk ci mbedd mi trap nekk ci bois di di fecc xale Cees benn bool la ñam daam seen tëgg foofu bu daam ñu dem baale bu daam seen tëggee doonuñu baaleeti en plus dañoo rafet ba fay dañuy tëdd parce que Cees dafa lëndëm ne ku fay takk jabar da ngay def seppi ilimaan da doon na jël intention pour takk xam naa kii bëggoon takk waaye xam naa ne da koy gis lii ma gis li li li lii kii internet bi li mu daj ragal na takk sala nga jël say say précaution nga nga toog bu bu la ilimaan tàggoo maay dem tool toppi ko yoon bi yoonu yoon appuyage daal fu fi jaar bu mu jaar bu jaar appuyage mi ngi dem Thiès abiage moom bu fi jaaree ñi ngi dem Thiès te ñoom borom alal yi dañuy bëgg yoonu ay maay dem tool sama tool bi amuñu tool de ay tool lañ amuñu tool de fa la ñuy dem toog jàpp xaayu te fii te ñoom dañoo am biir ñoom ñëpp seen biir ku ci raajte biir ñu takk ñoom booy raajte seen nopp bu ñu jàpp booy jàpp seen nopp ñu ne ñaata boobu may la war a gar ñoom ci problème bu nopp lañ am ak biir ñoom ñëpp am biir léegi sala bu ilimaan demee koj ko ne ko fan nga jëm boo bu waxee tool nga ne ko ñu ànd dem toole ma wutal sa illiir ak sa gopp boo demee gubbi nga gubbi boo ko bàyyi xel mu dal te wala mu tàggaloo Tiwaawan Tiwaawan ak Cees dafa jege nga bañ ili nag nga baal ma bëgg woon wax sa vie privée parce que dafa bëggoon jël intention takk te lii bu takkul procureur da ciy jóg parce que lii ñu de nar a def di takk xale ndaw yi ñun ñii nga xam ne amaguñu ay mag di takk xale te mag a takk xale ay mag lañ ñoom ñëpp ay mag lañ de bu leen ñoom ñoom tey bu ñu amul ku nekk yor bant ay paa lañ de ñoom ñëpp ay paa bant ala rek leen dimbali moo tax ala la baax ci àddina ñoom ñëpp moo tax it xale yi intelligent te tamit xale yi ngeen ngeen def seen seen déclaration jébbal dossier bi procureur ñoom bu dalee takkati xale ñu convoqué leen. parce que borom alal yi day takk xale yi rafet yi. d' accord waaw d' accord euh, euh, ñu gis ci euh, kii di Adamo génn amay kàddu yoo xam ne doon na ko wax naan Aziz li muy def da koy def pour naqaral Miss Aziz toppatoowul Miss ah Miss bu bu ko Aziz bàyyee day torox ndax kadd yooyu tamit rafet na. kilifa gu mel ni Aziz parce que parce sama xarit la te sa xarit doo ci mën a wax leen sama xarit la. dëgg la. parce que danoo jote woon yàlla daf ñu juboo bugguma ci waat ci dara. Mhm. waaw parce que bugguma ci wax ci moom lu sama xarit la bugguma ci wax ci moom lenn. parce que mhm. jote nañ juboo nañ. ne nañ mhm. ci jàmm bugguma wax ci moom. parce que moom du wax ci man sérieusement. amul looy wax ci moom moom li mu yëg na ko wax li mu santé na ko wax. li mu yëg na ko wax li mu santi na ko wax parce que sama xarit la mënu maa ma wax ci moom leneen sérieusement parce sama xarit la waaw sama xarit la mhm. mënu ma wax ci moom leneen mhm. parce que man du ma ni sama xarit nga pare xëy suba di la yàq mënu ma